Toujours dans votre acte du jour de ce

d'autres duñu nangu kenn kenn et je suis très catégorique dans ce que je dis duñu nangu kenn naan maa ngi woon j'étais opposé à lui démb mais gaaw bàyyil ma gaawantu dem yóbbaale sama base bu mel ni ab nga yor pour ñu jox ma foofu benn gâteau loolu dootul am si nous nous sommes au pouvoir. ak man fen du dara daf yëngal dong la fi nekk politic dóor matu kess la fi nekke merci beaucoup Bougane Gueye kenn du yow. ku waxoon loolu. nit nit am nit am kàddu. ma bëgg ngeen xam ne. dëkku Cheikhul Khadim. ñu am mbégte lool ci teewaay bi di leen sant.

Moi le 17 novembre Inshallah, nous ñu invité du changement boo xam ne nañu corriger li ñu le 20. xeex góor Sonko bu pouvez toléré Gourdigin, jigéen nañu jëflante ak moom. et bu boobaa moom bu Ah, tem mulher? Buoba! Mané buoba! Ah, tem mulher? Thank <laughs> you.

yeah. Quand il y a ñoo ko déggandoo muy kaddu Bougane Gueye président mouvement gëm Bop, bopp ci coalition sàmm sa kaddu ci li nga campagne bi ginnaaw nag bu mu ki nga xamante ne mooy tonton Mimi tête de liste parti Pastef l'actuel premier ministre ginnaaw li mu waxoon ci transhumance lépp daf ko daal di ravalé waat te li ci gën a ñaaw maanaam dafa dem ba ci diggu campagne électorale muy négocier ak ay maire maanaam di débaucher ay nit yi nga xamante ni démb da leen tamoon dëmm ak seen ay bétail mel ni ay oiseaux migratoires tey moom moo daal di wàccu ba pare lekkaat ko kon est-ce que sénégalais yi war nañu gëm ni que kii ay kàddoom war na ko la ko sàmm wala du ko sàmm donc c'est justement une raison boo xamante ni sénégalais yi dañu war a ubbi seen bët war a xam kan la ñu jàkkaarloo déggaat nañ ko ba mu demee foofa ca dëkku Cheikhul Khadim muy la région de Diourbel di région Ndiarème yëkkati na fay kàddu ñu gis benn fiwul boo xamante ni bu am solo daal di koy topp yaakaar naa ni démb aussi ba mu ñëwee foofa ca Médina fekk ji fa Bamba Fall lépp lu mu waxoon ci wàllu góor jigéen criminaliser homosexuel suñu demee ba tey ji mu ne dañ koy tolérer dañ koy baare fii ci Sénégal rawatina dëkku Cheikh Ahmadou Bamba dëkku Alaaji Malick Sy dëkku Maam Limaamu Laay dëkku Maam Baye Niass dëkku Cheikh bu Kunta Ndiassane donc je crois que kooku daal dina ravale waat lépp loo xamante ni waxoon na ko donc sénégalais ñoo mën a xam ne que da leen di nax da leen di manipuler du dara lo xamanteni gëm na ko ci lu muy def en tout cas ñoom Bougane Gueye dañi sam sa cadeau góor jigen dañ ko bëgg criminaliser fi nga xamanteni moy ci Sénégal ginnaw mom loolu la yëkëti won en 2022 yàlla jox ko won nguur tay la ko yàlla jox nguur tay la gëna am doole wala possibilité pour taxaw deugalat bopam ci cadeau yu mu doon wax su da fay sam cadeau en tout cas moy réaction Bougane Gueye Dany boo xamante ni gis nañ ko fofu ci Médina